ayca salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan à différentes à travers les différentes plateformes tey nag ñu ngi fii si arène nationale fas yéene leen présenté nag plateau boo xamante ni tey yaakaar na ne plateau bu spécial lay nekk waaye Yaram Art nag ñoo ko wootee mu war a nekk nag le 18 mars incha allah rabbi ku ne xam na ne diggante Tapha Mbeur ak nga xamante ni tey gàmmu ah Coly Faye ak ah ak waaw man xam nga damay réer yaa ma gën a xam ah ñoo war a bëri ak Pape Ndoye mu war a nekk nag a neex a a neex boo xamante ni tey yaakaar naa ah, képp kuy dund rek jour ba ah kontaan parce que plateau combat yi ñu dugal si biir ñoo si am solo ñaar ñii nag si lañ bokk muy Bas 2 ak Ouskara mu nekk ne ñaari xale yoo xamante ni ku si nekk tey boo tuddee tëram rek sa xel dina am si jëmm ju dem dem ñaari jëmm ñooñu nag ñoo toog nii baal ma njëkkee nag ah ak kenn ki mbër maa ngi lay ziar. Eh, delloo ziar naxam lébu jàmm ci loo ne sant bu baax ginnaaw ma sant yàlla ju yonente bi gëm sama ñaari waajur di waaw di nuyu fu mu jugee. waaw di sant gërëm xam nga waaw. mbër bëgg naa ba gannaaw ban sant yàlla julli si bi di ñaanal ñaari waajur fa nekk yàlla na leen fi ñu jugee. di yàlla yërëm leen xaaral leen àjjana. di nuyu bi fi nekk ñëpp di sama adversaire. waaw di la delloo nuyoo bi quoi mooy loolu. kii non xaw ma ko de. waaw ba ko xamul jamono ji mbaa wóor na. non loolu garaawul ñun ay bërekat lan bëre ku xamul loolu jaaxaluñu ko waa caaree lan dëkk. caaree lan dëkk waaw waaye nag bëre ko xamul jaaxal loolu waaye bëre mbër boo xamante ni te yaakaar dafa def ay preuve am ay qualité macha allah xam si moom dara dara dara. non ñun loolu dañuy neex sax di bëre koo xamante dafa mën a bëre. Mhm. lool dañuy neex ndax ñun caaree lan dëkk ay bërekat lan. Mhm. waaw bëre jaaxaluñu ko waa bëre bëre bu mu indi rek fekk mhm. na xamul te jaaxaloo ko. moo fu mu dëkk amul champion mu ngi waaw am na ay kay. non amul yi amit dem rëg xaw ma leen de xaw ma leen moom Balla Gaye laa xam. Ah. waaw. loo xam ci moom. kii xaw ma ko maa ngi ko doog gis xam naa ko may ah, ko may sens. ah waaw ndax ku safara. moo la safara maa ko daan ku am cinq combat benn défaite maa ko may sens xaw ma ko. waaw combat bi loo fas yéene loolu yëpp daal amul amul mhm. waaw maag moom la. si biir géew bi. na bañ a daw. mu taxaw na taxaw rek. nee na ko. loolu neex na. waaw kon loolu sotti seeg def si la. man du ma arrièreal góor waxuma la mbër rek góor du ma arrièreal man la bés de alliance petit bu ñuul bi man lay waxal de. Mhm. ki bu jour waa du def dara mu def daanu. xale laa ta mag la. kii xool xa magam jëmm la te man bu ndaw la damaa nekk si yoon. nee na vétéran nga. coo jiwul. loolu yëpp jarul ñëw na ba pare le 18 mars moom ñëw na ba pare waaw ku deese yaay juraat Ouskara kase. man kase ñu bëri nag bés boo xamante ni tamit ni nga ko xamee rek ay champion ñoo siy bëri mobilisation beeg yooyu fan ngeen si toll. déggoo ma xanaa barki Serigne Bamba yu pare du commencé si premier combat ba grand combat. du ñu ëpp mbooloo. est-ce moom du la nooy supporter. kii amul kenn kii maa koy may sax maa parce que kii bëre grand combat bi caare lay jóge. maa woo mu ñëw ma jàpp ko daan ko jël bu yomb par force. dégg nga lim kii du gis du xool kii nii ngay gis nii kii du xool de du sax gis kii fi mu dal baaxul. fi dal fi mu dal. baaxul fi dal moo baaxul ay mbokkam dañ kaa nax. Hmm. Hmm. dañ ko dugal si yow te waaw te xamuma loo mën a liggéey weewoo nga liggéey ka te xam ne xale bu ndaw ngay bëreel billaahi bu neex. bu neexee suñu borom si kàttanu yàlla dinaa ko daan jëla bu rëy. si kàttanu suñu borom. loo fas yéene sa diggante ak lum indi rek fekk ka lum indi fekk ka di nuyu waa Caaray di nuyu waat waa Caaray bu baax Caaray gu ma jugee. di ñaanal Kolifay yàlla na yàlla may ndam. soo paree woote. Kolifay numéro 2 di ko ñaanal yàlla na yàlla may ndam sama tooma waaw. woote. waaw di woo sama waa koñ rek. comme d'habitude waa Caaray di leen woowaat. di leen wax ne man seen doom laa maa ngi leen tàllal loxo ñu jàppale ma gën maa jàppale waaw te xam ne xale bu ndaw laa di woo plongeurs yëpp di woo gaali fii laa tournée yi capitaine yi di woo ci si mel ni papando yi ay manjaay ah ay ngaala ñang gaa yooyu noonu di woo ñëpp baaw ma kenn képp ku bëgg a jàppale Boss 2 rek maa ngi lay woo nga jàppale ma si combat bi plongeurs yëpp bàyyi ma kenn aw ma seen fay di leen woo si combat bu baax di woo waa Touba di woo sama mafia yi waa gaynde gaynde yi waa Tefes ah, waa armée bi ñu si mel ni déggoo waa beñ gàcce waa leer gi di woo groupe yëpp di woo katos ay see yëpp yi nekk ci aare yi bàyyiwuma kenn. us koy waa ASECNA waa Guédiawaye waa Yëmbal ñëpp. ASECNA daa mel ni Pape Ndoye fa lay jógee. waaw di ñaanal Pape Ndoye yal na am ndam sax day kii day kii day xaar. gaal yi ba ba pan. gaal yi ba pan. kii nii wax moo ko bàyyi si làmb ji wax mbel mbel kese da ngay noppi. di woo waa aseg naa xam nga waa géejo waay waa yëmbal. waaw ñoom caawo gars yi dañoo jàpp si contact yi ñoom saakees ñaa saakees yal na ko yàlla may ndam ñaa nañ jàpp si combat bi. rendez-vous le 18. le 18 mars mu daanu